jëmm jaadi baraham kibrilu mar bi dooma siri barahama mbal guy jàpp benn kaliteeg jën borom mënta mbal fardul jaami hobi doomaas siri barahama mbal gi fees na waaye yépp jën duñ teeri ndangaan borom jas bu roxo yee taax siri barahama mbaal gi fees naa ki jën waaye yëpp jën duñ téeri ndàngaan borom jas bu rooxo yee taax siri barahama dee xool ci ceebu yi kon ngeen ràññe bàyyi yàlla dafay toxal gëm leen siri barahama ceebu day toxu weer day kaamil faskurullah mañ mool bax rëy ni ñëw naa moo di barahama xam na yenn njanaaw bu ñu kàddoo dellu fana barahama wan ma cay kawtiif siri barahama yooye njanaaw wax jañoy wax man daf may dolli xaal may joobu ko dégg daahim siri barahama baada war naa gërëm ku ko tey bi ba mu xool asamaaw allah kubar gaañi gëm leen sidi barahama ku bëgg a xaatir seydi barahama war nga taqoog ñoom dang ca jëlee jës bu majzoob sidi barahama majzoob bu leen xàmmee boo ràññee ba ca ñoom dootoo wax lu jëm si naasuut sidi barahama alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah watu naa ne dootuma xaatir lenn lu dul bàyyi ndalum la kaw la jëm ajaban seyd ba ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di eh, ñaan yàlla yal yàlla gërëm xalifaam muy Mawlana Cheikhina Ahmada Tijaani ak Mawlana Cheikh Ibrahim ak suñ bunt ci moom muy Mawlana Cheikhul Xayri ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi eh, yëgle gàmm gi nga xamee ne ñu ngi koy defal mu jot ci Harema Abdou bi euh, guddi gi nga xam ne ñu ngi ko jagleel Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu waaye jaarale ko ci wéyu Ibrahima Diouf mi nga xam ne moo wax ne warlu naa ne dootuma xaatir lenn lu dul bàyyi ndëlum la kaw la jëm actualité boo xam ne du jeex kooku mooy mu ne moom dootul xaatirati leneen lu dul bàyyi ñu ne ko lu tax mu ne xelaat nit ñaari xaaj la dafa am nit koo xam ne day xew di xew yi waaye bàyyi nag ndëlum la ndëlum mooy koo xam ne dafay xew te du xew yi lu tax nag bàyyi xew te du xew yi incha allah bés boobu àddina bi yëpp senegal yëpp Tijaan yëpp taalibu Cheikh Ibrahim yëpp danañ leen xamal lan mooy ndëlum lan mooy ki xew te du xew yi yan màcceeru martaba moo dajee ci moom ba tax muy xew te xew yi incha allah ñu ngi ciy invité ñëpp di ziara ëwalan xalifa bi Mawlana Cheikh na Ahmada Tidiane waaye di ziara mboolem am naaw Cheikh Ibrahim wa banaatu Cheikh Ibrahim ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di ziara imam bi ak ay rakam waaye di ziara mboolem muqaddam yëpp di leen ñu invité ci jour boobu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.